frère am ak frère am ba ba yàlla def li mu def ba yàlla dogal li mu dogal kon kon ñun amuñu lu ñu wax nee na ñoom amuñu lu ñu wax lu ñu sant yàlla lu ñu sant yàlla ndax moom nee na moom xam-xamam xam-xamam dafa bare woon dafa bare woon dafa siiwoon dafa siiwoon àndoon ak yar àndoon ak yar ak teggi buy wax nee na moom lu njaa buy wax. doo ko dégg nee na doo ko dégg. jigéen dana ñëw. nee na jigéen dana ñëw. dugg nuyu ko. dugg nuyu ko. wax ko soxla wax ko soxla. su génnee su génnee. muy laajte kii mooy muy laajte kii fi ñëw wax soxla di jigéen mooy kan. kon xam nga xoolu ko. nee na kon xam nga ni kon xool ko dugg si. loolu bindam la woon. nee na loolu bindu Ould Ndiaye woon. mu nekkoon ne koo xam ni. nee mu nekkoon ne koo xam ni. ñi gën naqadi dëkkal la dëkkal. ñi gën naqadi dëkkal la dëkkaloon. muy naar. muy ñaar. naar. naar. muy naar. neexul dëkkal. nee na naar neexul dëkkal. boppam rek la yëg. nee na boppam rek la yëg. su demee. su demee. ba boo waxee. ba boo waxee. mu ni waaw. mu ni waaw. am na lu mu gis am na lu mu gis ci yow. loolu nag. nee na loolu nag. nee na loolu bindu wala du njaagal. kon nee na kon dañuy sant yàlla sant yàlla bu baax ñuy wax digganteem ak Serigne Touba nee na li wax na digganteem ak Serigne Touba dafa bare dafa bare man wax naa ni nee na moom sunu papa Abdou Salaam wax na ni ba ma géntee sëñ Touba ca Njaago nee na moom bi mu géntee Serigne Touba Xaadimu Rasuul ca Njaago dama demoon Ceyit nee na dafa demoon Njaago Ceyit ma ñu dalal ma ci taax moo xam ni seen woroom ñibbiseeguñu si mais pare na. nee na dalal ko ci taax mu bees moo xam ni seen borom ñibbiseeguñu ci ndax bees la. ma tëdd ba guddi. nee na tëdd ba guddi. mu mel ne dañu fëgg parenteel bi. nee na mu mel ma jóg. mu jóg fekk bataan yi ubbeeku mu fees dell ak lu weex tàll. nee na mu fees dell ak lu weex tàll. mu ni ma bàmba. mu ni ko bàmba. ni ma ana sa baay ni ko ana sa baay ma ni ko maa ngi ko ci daara ji mu ni ko maa ngi ko bàyyi ci daara ji mu ni ma boo demee boo demee siyaaral ma ko siyaaral ma ko waaye yow waaye yow bul yàgg fii bul yàgg fii kon kon ma jóge foofu mu jóge fa dem ñemeer dem ñemeer bi ma ñëwee ndar nee na bi mu ñëwee ndar bi ma ñëwee foofu ma wax ko ko bi mu demee ñemeer mu wax ko ko ba ma ko waxee ba ma ko waxee na nga fexe dem siyaare ji ko mu ni ko na nga fexe dem ziyaara ji sëñ Tuba xarit booba dem sëñ Tuba yombul nee na dem ca sëñ Tuba ziyaara ji ko yombul oto yi barewuñu nee na oto yi barewuñu yoon wi neexul yoon wi neexul ma ñëw fii nee na mu ñëw fii wax ko sama benn mbokku tailleur wax ko mbokku tailleur mu di lu eh, mu tuddi eh, góor gi Mbodj góor gi Mor Mbodj mbooñ góor oh, gu oh. ah. moor mbooñ waaw mun ma nan ko waajal mun ko nan ko waajal mu di toog di toog mu di toog di toog ba mu fàtte ba mu fàtte ma toog benn bés mu ngi tàng. benn bés mu moor ñëw ak ñax. moor moo ñëw ak ñaxam. ma ni bi. ni ko sëñ bi. ba jàmm la. mun ma jàmmaloo du jàmm. mun ko jàmmaloo ma sëñ Basiiru moo ñëw léegi. sëñ Basiiru mi ngi si noone. mi ngi si yónnee ma ndaw. yónnee ko ndaw. demaguma fa. te demaguma fa. dama ni ci yow. dama ni naa jaar ci yow. ñu ànd. ñu ànd. nga nettali sa diggante sëñ Tuubaa. ma dem. nee mu dem. nee mu dem. mu dem mu dem Sindoole. mu fekk fa Amadou nee na. naar bu njool. nee na mu fekk fa benn naar bu njool. nekkoon xaadi fii. nekkoon xaadi fii ci dëkk bi. nee ci avenue Dox di ma ko présenté. nee na naar ba di ko présenté. Bassirou dafa déggoon naar. nee na Serigne Bassirou Mbacke ci boppam dafa déggoon naar. xam naa. mun nga ñu toog tuuti. ñu toog mu ni mu ni bu subaa na nga fi dellu bu subaa na nga fi dellu si mu ni naar bi mu ni naar bi nag ma bindal nag ma bindal wér gu maaxuus wér gu maaxuus bi yeddi rasulillahi bi yeddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu subaa nga indi bu subaa nga indi ko ci ëllëg sa ñu ñëw ci ëllëg sa mu ñëw ñu daje fa mu ñu daje fa ñoom ñaar mu yëkkati kayit bi jox ma moom mu yëkkati kayit bi jox ko ni ma ni ko ku la doy jox ko ko ku la doy jox ko ku la doy bu ko jox mu ni ma mu ni ko yow yow fi Bamba toll woon ci jamono fi Bamba toll woon ci jamono ci bàyyi fi toll ci bàyyi fi toll léegi nga woon du ñàkk ci toll Ahmed Bachir ma ko ànd ko ah, sëriñ bu Mbàkke ma ko boo seetee loolu tey nee na soo seetee loolu tey ba mu ko waxee ba mu ko fi jaar ci xel yàgg xalifa yi fi jaar yàgg bari maa maa nit masuma nekk sama njiitu kër. nee na moom masul nekk njiitu këram. tey ma nekk sunu xalifa tey moom. Abdou Salaam mu nekk xalifa wala du jaar doomu Basiiru nekk xalifa. sëñ Mountakha Basiiru Mbàkke nekk xalifa sëñ Tuubaa Xaadimu wax ji génn te wax wax ji soogay génn. kon nañu sant yàlla kon nañu sant yàlla baax. di ñaan yàlla.

en Mauritanie et après il est retourné à Saint-Louis il a fondé des daara et parmi ces daara on a retrouvé beaucoup de gens dont Serigne Mansour qui est le deuxième khalife après Serigne Ababacar Sy on retrouve Serigne Moustapha Massamba Mbacké on trouve les gens de la famille Kounta de c'était un homme humble et qui a même refusé d'être cadi à Saint-Louis vu qu'il n'était pas dans la possibilité de voir appliquer les lois euh, coraniques, les lois islamiques comme ici devant. Et aujourd'hui, euh, c'est l'occasion pour nous, notre famille, de, de encore la grandeur de cet homme qui a écrit un ouvrage unique en son genre, qui est consacré à la succession dans l'islam, et je crois unique dans son genre dans la sous Et nous espérons, à partir de ce journée, vulgariser un peu ses œuvres. Donc voilà un peu l'essence de cette journée. Et nous continuons à célébrer les deux rakas par la lecture du Coran, mais aussi par la vulgarisation des œuvres de Elhaj Mandiaï par rapport à Saint. Oui, c'est un contemporain de Serigne Touba. Et, mais la plupart de, de relations euh, de ces voyages sur Touba, c'était après la disparition du vénéré euh, Cheikh Moubamba. Et il a eu à rencontrer plusieurs fois ce Moussafa Baké. Et d'ailleurs, je crois, le dernier euh, qu'il a fait, c'est à l'occasion de la guerre deuxième, Guerre mondiale, où le Khalif lui a demandé de faire des prières pour que la paix revienne dans ce pays. Et euh, ce tarif est disponible et vous pouvez euh, l'avoir euh, à vos C'est une occasion pour montrer aux jeunes et aux générations actuelles que d'abord le savoir compte, qu'il faut aller à la recherche du savoir là Il est allé jusqu'en Mauritanie, revenir ici, et, euh, plein d'idées, plein de savoir. Et donc la jeune génération doit s'inspirer euh, de l'exemple de vénéré Cheikh Ahmed de l'exemple de vénéré El Hadj Amadou Ndiaye pour pouvoir perpétuer Ce que les gens ne disent jamais, qu'Amadou Ndiaye est le descendant de Ndiaye. Vous connaissez Ndiaye qui est l'un des fondateurs du de Ganda, dont la première demeure et l'unique titre foncier de Ganda est au nom de Ndiaye. Donc, euh, qui est son père, il était d'une famille contemporaine de ce grand frère Bounama Ndiaye qui est célèbre avec Ndiaye. Voilà